simila ci Tactic TV dal leen ak jàmm mbokk internet yi Rango mi yoon teg loxo ci ay bés yi ñu génn ay takk der ya gis nañ ci ab téléphone boo xamante ne moo ko yoroon lu ñu mel ni ay vidéo porno yu mu yoroon moom ak yeneen ci ay xale yu jigéen ànd ak loolu gis nañ itam mbooleem ay client VIP yi nga xamante ne doon nañ ko suivre ca benn site bu mu tijji woon boo xamante ne nii daanaka da daan fay ngir mën caa bokk ndaw su jigéen su siiw si di wuyoo ci turu Fatoumata Bari waaye ñu gën koo xam ci turu Rango doon def li ñuy woowee ab càggatu déguisé mel na ni bi yoon dalu ci ndax chance ba mu amoon ci jamono joo xamante ne nii kile di Mame Mactar Gueye bu Jamra mu ngi doon jàmmaarloo ak moom bëggoon ko yóbbu ci kanamu woy attekat ya mujjantal ga ñu daal di koy jéggal te li ko waraloon mooy ab vidéo bu mu defoon mu ji ko posté ci réseaux sociaux yi te doon ci jéggal képp koo xamante ne ni daanaka melokaanam ak i jëfam métti na la mbaamu mu la àndak loolu mu doon sàkku ñu ñaanal ko ndax mu doon wax ne moom ab xale bu ndaw la rek xëy na dafa juum waaye dina jóge ci li mu li fekkee ne loolu jotoon na ko sauvé ci bu njëkk laata muy jàkkaarloo ak woy yoon mel na ni bi yoon moom amul boobule chance ndax kat yoon da ko topp yurndu ko ba jàpp ko loxo ci poos jamono ji moom ak benn ci ay ñaalem bu mu seqaloon liggéey bi di wuyo ci turu satu Njaay ña nga ca loxoy yoon ba daanaka fi mu toll ni ma ngay fanaan ca kasop camp pénal juge d'instruction bu huitième cabinet moo ko placé sous mandat de dépôt moom rangu naka ak ñemu àndaloon ca mbir ma ñu ngi leen di joxoñ baraamu tuuma leen yoon toppee mooy association de malfaiteurs maanaam bokk ci kuréel guy def ñaawteef prostitution maanaam di cagatu défaut de carnet sanitaire maanaam ba ñaw yore bépp kayit ak jumtukaay bu ko war a mën a may mu def lu ni mel proxénétisme maanaam di defloo ak a def mbir saay-saay ak i ñaawteef di ci ut alal waaye itam ñu ngi koy toppee li tubaab di wooyee diffusion d'image contraire au bonnes mœurs maanaam di fësal ak a wasaare ay nataal yoo xamante ne méngoo wuta ak li waa réew mi wax euh, violation sur la loi de l'état d'urgence maanaam jalgati gu mu jalgati li nga xamante ne moom la yoon tëral ci wàllum couvre-feu ak ndajewoo ci réew mi ci jamono joo xamante ne covid 19 bi waa coronavirus mi ngi lëmbe àdduna lii lépp nag mu ngi feeñ gannaaw si nga xamante ne yoon mu ngi ko doon topp li ko waral di ubbi gu mu ubbi ab site boo xamante ne nii site porno la waaye boobu la site daanaka ngir nit ñi mën cee dugg dañu waroon a fay xaalis gu bari dalee ko ci euh, cinquante mille ba un million yenn borom daraja ngir mën di tëdd ak ay xale yu jigéen yoo xamante moo leen di boole ak ñoom lii moo waral yoon teg ko am sax am na ab avocat boo xamante ne jamono ji moo koy défendre boobule avocat mu ngi wuyu ci turu maître Abdoul Aziz Djigo xaritam ba sës rëkk ci moom doon ànd ak moom ci liggéey bu nu mel itam daanaka moom itam na maître maître Mamadou Gueye moom moo koy défendre moom Aïssatou Ndiaye nag la ko yoon di toppee wuute na tuuti ak ki nga xamante ne moom mooy xaritam bi di rango ndax moom le la ñu koy toppee mooy association de malfaiteurs maanaam bokk ci kuréel guy def ñaaw ñaawte prostitution ak proxénétisme cagatu ak di cagatuloo ñeneen waaye itam ñàkk yore carnet de santé ak lépp lu jëm ci wàllu kayit yu ko mën a may mu daal di def googule cagatu la ca gën a doy waar mooy kilee di ay satu Njaay moom di xaritu Rangou yoon la mu koy toppee bokk na ci loolu blanchissement de capitaux maanaam di jéem a lewal alal yoo xamante ne setul way l'enquêteur ya nag daanaka ba ñu duggee ca galerie bu téléphone bu ki nga xamante ne ni moom mooy Rangou lañ ca fekk ci ay nataal lu la nemmeeku comme naka ndayam juree woon ti awram ja di ca foog ak yeneen di mbir yu doy waar yoo xamante ne ni xorma mayul suñu làmmiñ di ko tudd moom Aysatu Njaay mii ñu identifié ci mbir yooyu lee ma nga ca kaso moom itam ba wuy l'enquêteur yi defee seeni lëj mbët ba noppi jot nañu gis ne kile di Rangou amoon na ay clients yu daan fay lu toll ci fukki junne ba benn million ci sunu xaalis moom lañ daan fay ngir di mën a tëdd ak yenn ci ay xale jigéen yoo xamante ne nii kile di Rangou moo leen di boole ak ñoom yooyu les clients itam bari na ñoo xamante ne identifié nañ leen te ñu nekk ñoo xamante ne ni ay borom daraja lañu ñenn ci ñoom yoon woolu na leen ngir déglu leen daanaka jot nañu jàkkaarloo ak way takk der ya féetee ca brigade de la lutte contre la cybercriminalité maanaam mbaa kuréelu way takk der yi nga xamante ne moom mooy saytu lépp lu jëm ci wàllu nënganteeg saay-saay ci xarale yu bees yi ca ba ñu fexe ba dal di infiltrer réseau bu rangu boobu ca lañ jot gis nag lépp li nga xamante ni xew na ci ginnaaw ndaw sile te xel nangu na li nga xamante ne moom lañ gis ci ay borom daraja yu nekkoon ay client am ne bokk na ci loolu mooy li nga xamante ne moom moo mayoon xale bu jigéen bii di rangu mu am fit ak sañ lu bari loo xamante ne doon na ko def lu ci mënti am jamono jii kii lee samp kay mooy ndax dañ cay génnam déet ndax lii ñuy ruumalaat di wax naan la ci wàllu yoon dafa am kumba bu am ndey ak kumba bu amul ndey dina feeñ ci mbir mi am déet jërë ngeen jëf